mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaat baax leen siyaar baax baax tey ñu dikkalaat leen ci seen seet bu am solo bi nga xamante ne ci topp ki lépp ñu nga rafetlu baax tey ñu dikkalaat ci bi nga xam ne bi tey jii ngi leen baax ngi leen nuyu di leen siyaar ñu ñu suñu waa seen YouTube bi nga xam ne dañuy topp muy Lasrar 313 TV ngi leen sant di leen gërëm ñu ngi gis ñu euh, ñuy félicité ak di ñu ñaanal bu baax a baax tey nag dañoo ñëw ak yéen ci garabu ndoxum siti am benn euh, garab bu am solo boo xam ne dañu liggéey ci ndoxum siti garab gi moom xawma garab bu ko gën gaaw faj ndoxum siti ak ndoxum siti mu la mën a ndoxum siti dafa bari ay façon xam na xam ndoxum na na seen dem na seen seen karaw ñu am dema dem ba nga xam ne bu dee wàllum góor la sax da lay néew néewloo kàttan nga gis jigéen ñoo xam ne ndoxum siti moo am doom ndax ndoxum siti dafa nekk loo xam ne liquide boo xam ne bu bu fekkee da nga ko jigéen sax day dem war a am doom liquide boobu day lakk lakk loolu ba nga xam ne kooku du am doom képp koo xam ne moom dal na la ndoxum moo xam sa yaram day xasen am ay kicci ak a dale boo ñëwee ñu fajal la ko seese bi rek boo ko jëlee ndoxum siti nu mu mën ko saafara garab bu ko man man bii ci ndoxum siti man xawuma garab bu ko man te boo ñëwee traitement bi jigéen diir bu gàtt gàtt lan la koy traité nga sant yàlla bu baax a baax a baax ak ndoxam si nu mu mën a demee rek incha allah xam ne pour ñi nga xam ne seen bopp yi day ñàkk karaw dañ liggéey ci bii bu ni naam liggéey boo xam ne pour karaw li nga xam ne wàllum karaas ak yooyu boo ko diwee sa bopp day dindi karaas day dindi ndoxam si te wàllum xase yi ngay def ndoxam oto la ñuy gis day bokkoon ak sa wàllum ñàkk karaw yëpp boo koy dindi boo koy dindi sa bopp bi da ngay am karaw karaw bu rafet ngay am bu gis ba pare moom day faj ndoxum si bi ne sa biir bopp bii nag ndoxum si bi ne ci biir lay génn moom waaw waaye bu bi nga xam ne bopp bi la moom mooy bi nga xam ne rek dañ koy dugg ci sa kaw bopp bi pour karaw képp koo xam ne am na ndoxum si rek boo ñëwee ci cabinet bi nga am Mariane bi tamit baax incha allah dana ko traité ko mën wér ci yow incha te képp koo xam ndoxum si daf laa dal dañ lay wax yi nga xam ne la traitement bi faj nit mënoo di faju ba pare topp li nga xam ne day gën a sa jàngoro nga di def ndoxum si bi bala dalee da ngay moytu ndoxum siti bu la dalee da ngay ndoxum siti bu la dalee da moytu di naan am soow soow mu far di moytu di lekk yàpp bëy yàpp bëy baaxut ci ndoxum siti di gën a yokk ndoxum siti bi am na ñoo xam seen ndoxum siti bi bu sedd xasee jam rek wala lu mel ñu sang ba pare seen yaram day xasal ndoxum siti yooyu boo ci mën a am rek boo amee garab incha allah suñu da dana ko saafara ñu ngi réew waaw kon mbokk yi noo ko dégg noo comme noonu ko waxee ñi nga xamante ne sikk da leen sonal xam ki nga ne ay wéyam dafay damm wala ki nga ne dafay ñàkk la wala dafay xasan bi tamit mi ngi def ay listixaar yoo am am solo seet gu nañ nga xam ne wax li sa kanam wax li sa ginnaaw ba mën na la wax sax bi bi nga war a génn àdduna mën na ndax loolu seet gu nañ moo ko wane ak yeneen mbir mi ngi fi yoo xam ne bayra yoo am am solo cabinet bi nekk ci bëgg ay leeral nga fexe woote ci 77 622 41 54 baa nga woote ci 76 174 22 94 yéen ñu topp seen bi yàlla ngeen bari jàmm